juróomi fan ma ne ko nit ñi nga xam ne ñoo xamul luy fonction wu sondel bu ñu taal muy tàkk di seey nit ñi xamul fonction wu sondel ñoo ñooy yërëm sondel naan ko ma ngay seey nit ñu xamul nit ñi xamul sa fonction yow ñoo lay yërëm naan la fu nekk yaa ngi fay dem toogal noppalul loolu mooy sa rôle yow yaay rooxu deferu bindee waaw ñu ngi gërëm ñëpp mbokk yi di sant ñëpp wax dëgg bëgguma woon a guddal nii ndax euh, programme bi wante maa ngi jégalu président de séance bi mu di ministre bi nga xam moo fi nekkal président Abdou Diouf di jégalu kilifa yëpp incha allah nu mu leen di jox rendez tey ci ngoon ñëw nag ci ay bés gi moom mooy di teewee ca conférence nga dégg bu baax a baax a baax la nga xam ne moom moo fay xew moom la borom xam-xam yu di bi wax waaye ñëw fii dem dootoo ñëw amul solo asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala xayri anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mboolem jullit ñi mboolem ko fi teew ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu ñu tibbe ci xol di leen gërëm gërëm lu maasale tàmbalee ca ka kaw ba ki képp koo xam ne jóg nga taxaw ci liggéey bii nu jëm sama ngeureum ci lu sama làmmiñ mënula jotali ak sama mbik ci yow yabal na ko ci yow ak sama ñaan tàmbalee ko ci ni ci ngor gi yilif rew mi dimbali ba ay bis gi am ñu see am mi am xalaat am cawarte bëgg lu baax taxawal semaine bi képp ku fat sa tànk ñëw ba agsi fi ngir teewe ko ak ku am yéene te mënuloo ñëw yàlla na suñ boroom def liggéey bi muy liggéey ba mu nangu ful yool bi ba mu toll ne peppi suuf yi mu jagleel ko képp ku fi ñëw ak ku bëgg ñëw te mënuloo ñëw gannaaw loolu juddit yi nga xam ne sunu borom baaxe na leen ba ñu xam li leen war li leen diine ji waral ci ñoom li nga xam ne yàlla ci boppam moo ko teg ci seen loos mu di seede ëllëg yowmal xiyaam lu ñuy seede moo di béréb bu nekk day seedeel doomu aadama lépp luy dund ànd ak moom dafa koy seede ëllëg boo gisee xukkamaa yi ne xubbul watani minal imaani bëgg suuf si nga dëkk bokk na ci ngëm moo di bépp suuf boo xam ne jaamu nga fa yàlla wala def nga fa lu rafet walla lu baax wala nga jëriñ fa mbindeef yowmal xiyaam dana taxaw seede la seede soosu kon lu ma a rafetal la kon bu nu delloo ci gannaaw diine mooy li gën ci li doomu aadama am muy ngëm gu nekk ci xol ñu wax ko ci làmmiñ jëfe ko ci ay cër malaayka yi di ko seede sa mbokk yi nga nekkal di dund di ko seede suuf si di ko seede am nga njukkal loo leen waral ñoom ñëpp li nu war ci képp koo xam ne xam la ne diine mooy wormaal ko taxaw ci matal xaqam feeñal liggéeyam li ci nekk dafa bari daje gi ñu daje fii njëriñ yi jiitu moo di xamante gi ñuy xamante ëllëg si biir ku fi jóg dajeeg sa moroom xam li leen boole xam li ngeen bokk xam li ngeen bëgg mu di mbokk goo xam ne mooy innamal mu'minuuna ixwatun nu itam dellu si gannaaw seet ne Sénégal ba suñu borom di séddale fàttewu leen te mën naa ne daf leen a beral loxo sax ndax baaxug yàlla ci Sénégal dafay lu fés lu leen suñu borom defal bu ñu seetee réew yi ñu bokkal nekk ci lislaam ak réew yi ñu bokkal leneen lépp ah yàlla musal na leen ci luy xew ci yeneen réew yi ci des yépp te li ko waral moo di dañoo bëgg yàlla bëgg képp ku bëgg yàlla yemuñu ca ndax ki bëgg yàlla di liggéeyal yàlla ma ngay liggéeyal réew mi mu nekk mépp di liggéeyal mbokkam yépp di liggéeyal mbokki jullit yépp moom ci boppam ñu amee ko kon xàq yoo xam ne ëllëg dañ koy laaj bi nga xamee nag dañoo seet ne Sénégal jullit ñi ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk fu ñu jóge bokk lu ñu bëgg bokk yoon wu ñu aw loolu tax ñu seet ne ñaari at yu ne wala ñeenti at yu ne nañu seet ci sunu mag ñu baax ndax yàlla bu muy séddalee gannaaw fàttewuñu noo ngi jàng ci téere yi di gis jëf yu mag yi ay doomu aadama def yoo xam ne dañoo ñëwoon ci kaw suuf yàlla yebal leen teg leen ay war-war ñu xam ko ñu xam loolal di ko jëfe Sénégal dafa am góor ñoo xam ne ñoom it dañoo toll noona nga xam ne kenn mënu leen a ëpp liñ leen li nu gàñee nag ñi ci des moo di fanu leen teg xam leen sàmm seen orma matal seen àq moo tax seenu barke du dañ di dajale mboolem ku nekk ci réew mi ndax allazina amanu wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim ab charte la am moo di wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin bu fekkee ne gaa ñu baax ñu ñëpp dañu fa nekkoon ba jóge fii te defaluñu leen lii nu leen defal ni nu leen fonk fonk wuñu ko taxawuñu ci matal seen àq seen barke ci ñoom dong lay yem waaye du agsi ci nun ñoom ñoo jëfe woon li xukkamaa yi wax ne amal li dunyaaka ka annaka la tamuutu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu xadan ndax li ñu jëfoon bu fekkonte ne dafa yemoon ci ñoom képp ba léegi duñ taxaw di ko waxtaane di ko sulli ngir nit ñi di xam la ñu jëfoon di yoon wu ñu tàllal woo xam ne nit ñi war a jaar ngir texe ëllëg kon bu fekkene set nañu ne ñooñu dañu no liggéey liggéey bu reuy nu baña set kenn fu fess lu dul ñëpp bok bëggandoo ñëpp bok wormal ñëpp bok sam ñëpp nu bok nday bok bay yëg li nga xamne mom lañu alquran wax ak li yonente bi wax sallallahu alayhi wasallam al ne almuslimuuna dima'uhum wa yas'a bi zimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum ñi gëm ñëpp seen deret ben la ki gën a ci way gëm ñi bu fasanteeg nit wëllëre wëllëre woowee wat na jullit ñëpp jullit benn loxo lañu tiim képp koo xam ne dal nga ci kaw kenn ci ñoom ñu seet nag masuliya maanaam responsabilité sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy sulli seeni jaloore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 di nuyu nag Medoune Fall mi nga xam ne moo fi teewal président de la république Eyan Thiam mi nga xam ne mooy jiite mbooloo mi yépp kilifa diine yi fi teew yépp kilifa tarixa yi yépp délégation yi góor jigéen mag ak ndaw di feeñal cant ci yàlla ci jëfandiku bi nga xam ne moom la Iyane Thiam def mu di jëfandiku boo xam ne xel mën na ko nangu ngir fi nga xam ne fa la xalaat bi jóge di xalaat bu sell boo xam ne xëy na yàlla toqalu ko ci xelu ñépp yàlla nag mbiram xatul dafa yaatu te lii mu def nag moom Eyane Thiam di tudd kilifa yi nga xam ne ñoo fi passé ci mbaax di ay mag liggéeyal yàlla sonn ci yàlla génne bàyyi ñu fi ak ay jeexit jeexit yooyu ki nga xam ne ki yàlla demal na xelam ba mu mën ko jigéen ñi ci suñuy bët walla di ñu ko fàttali kooku jullit yi yëpp ameel nañu leen jant muy mbooloo mi te liggéey bi liggéey la boo xam ne bi feeñal feeñal mbaaxu yàlla la feeñalit it kantanu yàlla ci mbindaaf yi nga xam ne dafa def ci ñoom ay mbaax ki nga xam ne nag moo jagoo bés bi muy maam Saxiir Mbay nit ku yàlla baaxe la ndax bés bi nag bésam la semaine bi it semaine am la bés bi bésam la semaine bi semaine am la moo waral UCM def seen yitte pour gëstu mbaax mbaax yi nga xam ne bàyyi na ko gannaawam ci lenn nag ndax am na yoo xam ne njaboot gi duñu nangu mukk ñu génn ko ci biti te yooyu nag ay cëri baatin la li nga xam ne moom lañ leen mën a wax rek mu dëppoo nag ak ni ko góor gi bëggee woon loolu rek lañ leen xamal waaye li nekk ci biir yëpp it xamuñu ko te seeni seeni doom njaboot gi duñ leen ko joxit kon nag kooku nga xam ne dafa passé woon ci ay jamono di jëf ci digganteem ak boromam ak ulama yi nga xam ne nit yàlla nit yàlla nit yàlla yi nga xam ne ñoom la dajaloon te kenn ku nekk mu jokkonte ak yow nëbb boppam du génn àdduna ñu di ko weer waaye nag danañ si feeñal nag lenn ci ay mbaaxam feeñal googu nag moom la UCM jóge di ñu ko jegeñal ci suñu bët ak ci suñu xel di fàttali fàttali ñu amee nañ leen sant te nun nu ngi leen di sant nun ñëpp gannaaw bi nuyoo nuyoo bu mat ci jullit yi fi nekk yépp ci turu lislaam ci turu njabootu Cheikh Ahmadou Saxiir danu ne beneen jéego ngi bu mag ci lislaam bu ay doomi Sénégal jéggeeti jëm ca kanam ci liggéeyal lislaam ndax doomu aadama dafa ñëw ci kaw suuf ngir jàng ëllëg lay tari bu mokkalee ak texem sax bu mokkalul leneen ay xew doomu aadama dafa ñëw ci kaw suuf te fekkul lépp pare yàlla daf ko wàccal cër boo xam ne moo ko war a sottal foofa nag lañ koy natte mooy àndaar bi ñu koy natte moo tax alquran ne waxul amalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu kon yéen kilifa yi diine yi yéen imaam yi jàkk yi am ngeen yenn boo xam ne xam ngeen ni mu demee réyaayu yan bi rëccu leen moo waral ngeen taxaw taxawaay bii daaw daanaka ci waxtu wi wuy ji woon nañu woote boo xam ne ca Maroc buuru Maroc Hassan II moo ko woote woon woo ilimaani jàkk yi nga xam ne ilimaani jàkk yi am nañu jekku ci xeet wi ci jiite gi ñu leen di jiite ci li yàlla gën a fonk muy julli di wax ak ñoom ci xutba yi mën a walbati xol yi mën koo yëngal mën koo jëmee ci fa leen di jëriñ mën koo walbati ñu jox gannaaw la leen di lor kàttan googu suñu borom a ko jox kuy jiite julli ñi jiite si julli lu am solo la ndax saxaaba yi bi ñuy tànn abubakarin siddiq radiallahu anhu mu jiite leen ci seen àdduna dañ koo natt ci njiite gi leen di jiite ci diine ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko mas a tànn ngir mu jiite julli ñu ne ki yonent bi gërëm ci sunu diine gërëm nañ ko ci sunu àdduna kon nag seen liggéey rafet na seen taxawaay rëy na seen mas'ul yi tam noonu la toll maanaam seen responsabilité ndax li ñuy wax alqiyamu ruuxiya lu ñu war a maanaam xayma yi dafa bari valeur dafa bari ñu dem ba xaw a fàtte valeur yépp ba mu des benn mooy madde jarimatun la tafar muñ gëm yàlla yéene sa morom jullit mu doon ak fu mu mën a nekk li nga yéene sa bopp di dox ci jëriñ ko loo ko xamal ci lu koy lor nga wax ko ko loo ko xamal koy jëriñ nga wax ko bokk ndey ak bàyyi bokk fu ngeen jublu mooy li yàlla sant jullit ñëpp saa'iliina allaha taala an yansurahum muy ñaanaa mu dimbale leen ci pas-pas bii وأيدهم كما نصر وأيد حبيبه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه مدقر مدغر لين غنا بوملين ديمبلي نكا مدغر ليون دمبلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثبت أقدامهم على المنهج القويم الذي سلكه سلفنا الصالح bijari sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yal yalla saxal seeni ci digg ngir mu leer mi nga ñu baax ñi sama kër najaay mo fa di mak moy khalifa ba mu ngi nuyu ibrahim mbay mi nga xamne kër cheikh ahmad Sakhir mbay ca Louga moo fi mag tey di nuyu sëriñ saam mu ngi nuyu sëriñ saam mii toog di nuyu alxaaji jiili mbay mu ngi nuyu it alxaaji jiili mbay di nuyu usra bi yëpp mu ngi nuyu mbooleem ku bokk ci askanu maam alxaaji muhammad saxiir mbay ak xarit yi ak xarit yëpp ak mboole i jullit yi fi daje zukuran wa inasan ak mboolem bokki jullit yi fi daje seeni góor ak seeni jigéen di nuyu it ki nga xam ne fii moom la fi président de la république yebal pour mu taxawal ko fi mu ngi nuyu it ndaw li nga xam ne lii moom la fi boroom réew mi yebal mu taxaw fii tànkam di nuyu doomi soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di doxal xam-xam mu ngi nuyu itam bépp doomu soxna bu réew mi ëmb muy doxal xam-xam di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy xamal ku xamul lu ñu am ci xam-xam mu dolli ko boole ci dégg muy ñaan yàlla mi nga xam ne ku xam moo la xamal ñooñu lu ñu am ci xam-xam yàlla na ko yàlla dolli te dolli leen ak dégg ndax xam-xam teraanga yépp moo ci gën kawe ndax nee na soo dee lim teraanga yi xam-xam ci gën a kawe yàlla ne borom xam-xam man maa ko yëkkatil sama bopp. yàlla ne borom xam-xam man maa ko yëkkatil sama bopp. ku gëm yàlla it yàlla ne maa ko yëkkatil sama bopp. ku gëm yàlla itam gëm gu wér yàlla ne maa lay yëkkatil sama bopp. yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. mu ngoog loolu la aaya ja wax yàlla nee na ñi gëm ci yéen gëm gu sell ak borom xam-xam yi ko jëfe maa leen دعوتكم الشريفة راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يقضي لي بسببها حوائجي الدنيوية والأخروية ويغفر لذنوبي نينا نيو نووت ويجي سين ويسي سين ووت بي نينا ديكي ياكار يالا باركيل ويسي جيم ويسي في بأير آجومي أدناك لاخرام أك آجو جوليت نيب أدناك لا لاخرة من كيف أجوم wuy jikki it maa ngi koy defal asaas ñaari aaya yi nee na wuy si gi mu wuy si fii يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يلا يلا جقل سني بكار تي بي مسل ني ألك تي مبغل مترم xam ne boo ca wuy jiyee la nga fay jëfe jëf joojule dana dundal sa xol ci liimaan ba mu leer naññ dana la mat ba yóbbale ci sa ngërëmal boroom jooju aaya dëgg na ci tax mu ñëw fii jenn ji ci des yàlla def ne suñ leen wootee ci lépp loo xam ne sama ngërëma ca ne na ngeen ca wuy ji te na ngeen ko gëm su ko defee danaa leen jéggal seeni bakkaar sëriñ bi taxaw foofu ci aaya ji ne ci barkeb danaa leen jéggal seeni bakkaar اتيت ملبيا لاحاديث كثيره من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اختار هذا الحديث الذي ساشنف بها مسامعكم الان من من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم نانا ويسيغي من نكو ويرتي حديث النبوي yu baree baree baree bari yoo xam ne dañuy wax an diw an diw ba ci rasulullahi waaye moom benn aaya tey la ciy tegtaloo mu sabab wuy siyam gii mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku mbiram jullit ñi yitteelul lu jullit ñi woote nga ne ma wala tay naa duma dem nee na ku mbiram jullit ñi yitteelul da ngaa woote ne yaa ngi bokk ci jullit ñi waaye bokk ci jullit ñi su dul ñëpp ñu bari gis nañu fu ñu waxe ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ko masa doonte la yeelu xar yoo baxal dan la lu wuy nee na boroom gëstu kër yépp gis nañ ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak dara jaam ju màgg jépp lu jaamu yàlla ma sa di doye di doye di ba ay yeelu xar yu wow nga am sax baxal ci sa kër boo ko ci invité du la ëppale boppam dana ñëw ak dara jaam ju tedd ja ba seeñoog yow sa yeel yooyu kii ma koy ñetteele nee li mu koy ñetteele kii tax ñu woote kii tax ñu woote ni ma bàyyi Sëriñ Tuuba jure Seydil Haj Mali jure ma ko Maaram mbakk jure ma ko noonu la mën na jaay amat saxi jure ci wàllu ndey ak wàllu baay nee benn sabab bi tax mu wuy si nee na centre bii ki ñu ko tudde muy maam Ahmad Saxiir Mbay nee na ni ko maam borom Tuuba jure radiallahu anhu maam alxaaji malik juree ko ko radiallahu anhu maam maaram mbakki juree ko ko radiallahu anhu noonu la ko maam ahmad saxir mbay jure radiallahu anhum kon nag bépp cin boo xam ne moom lañ ko taalal sëriñ bi ne kon nag bépp cin boo xam ne moo tax ñu taal ko te la ca ñore moom lañ koy tere la te ca ñore moom lañu koy terale jaral na ma dugg ci àll bi seet fu matt gën a bari te bañ a nekk poñet xanaa nekk gànj ma taxan ci sama kemtalaayat katan andi ci ñakoy koy togg dimbaleen ko dañoo bëgg taxawal doj wi ñuy njëkk a teg ci suuf ko pour centre bi ñu tuddee Cheikh Ahmad Sahir Mbay muy ma al markazul islami xanaa rek fàttali leen tuuti ci mbooloo mi lu ko tax a jóg mbooloo mi ci mars 84 lañ ko sosoon ci benn congrès boo xam ne Sénégal bi yëpp seen imam yi teewoon nañ ci euh, te woon na fi lu war a mat ñeenti junni imam ca waxtu woowale li ko taxoon a jóg nag mooy fexe rek ba ak xaritoo ak ak bokkoo diggante borom xam-xam yi ak jàngalekat yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ko jàkk ñu gën a xamante gën a xaritoo ñaareel bi mooy fexe ba bu feetu diine jotee mu di ak iid mu fexe bu mu nekk benn fexe it ba loolu na romb Sénégal waaye addina si yépp ñu fexe ba loolu bu jotee ñu koy defandoor mu ngi am nag ci waxu waxante ak déggoo sàkkaayu mbooloo yuy fuglu terutel weer wi te buñ ci jotee di ko teel a yëgle ñetteel bi mooy fexe ba taxawal benn programme ci rajo beeg ci télévision bi semaine bu nek di ci wax mbiru lislaam te loola amna mu ngi tuddu kaddu imam yi ak sermo bi nga xam imam bankay def ci bëccëgu aljuma bu nek ñentel bi moy def école boo xam ne dafay jàngale alquran ak xam-xamu diine ñu fexé ba def ko ci jàkk yu mag yépp tàmbali nañ ci ci ndimbalal ministre de l'éducation nationale ba def nañ ci ñent muy grand mosquée ak jàkk ji nekk ci El Mansour ak ba Pikine ak ba ca Barñe incha allahu ñu fexe ba jumaa yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci région ak département yépp ñu fexe ba ñaan ministre bi mu détaché ñu benn jàngalekat arab ak diine mu dem fa ndax jàngal doomu jullit ñi nga xam ne bëgg nañu alquran ak diine te fekk duñu ca fay dara juróomeel bi mooy fexe bay euh, euh, gisante ak imam yi nekk ci département yi ak ci arrondissement yi ak ci région yi ci wante ay xalaat ci ay masala yoo xam ne lépp mu ngi aji ci diine wala mu ngi aji ci jàkk comme ni ko sama baay waxee léegi ci jàkk yi nga xam ne rawaate na dafay am ay wax wala mu am ay coow fi ñu toll am na jàkk ju mel noonu sëriñ bi wax yëg nañ ko incha allahu ñoo ngi yore kayit yi ñu ci def lépp loo xam ne euh, mën nañu ko te yaakaar nañ moom ak ndimbalam ak ñaanam aman na dana sotti dinañu ubbi jàkk ji balaa yàgg incha allah juróom-benneel bi mooy fexe ba di taalif ay téere donte dañu tuuti ci ay kayitit ñu fexe ba njëriñam bari ñu tekki ko ci làkku tubaab li nga xam ne ñu gën a bari fii amaan na tey danañu ko dégg juróom-ñaareel bi mooy fexe ba eh, am benn programme u ifta tàmbali nañ ko ifta mooy ñuy laaj ci diine am ku leen di tontu loolu itam déjà amal nañ ko juróom-ñetteel bi mooy tabax eh, eh, li nga xam ne mooy projet bi tegu ci seen kanam te léegi bu ñu paree kundul architecte bi mu ngi fi amaan nañ ñi ci xam lii danañu ko expliquer jàkk ngi ci ngir julli benn école ngi ci ngir jàngale alquran ak xam-xamul islam benn saal bu yaatu ngir ay daje ak beneen saal boo xam ne ku bëgg jàng di liir fa ngay dem ak benn dispensaire ak benn béréb boo xam ne gune yooyu ñuy sànni dañ leen ci jéem a yar danañ bëgg itam euh, gannaaw loolu euh, mu nekk benn bibliothèque dana fa am accès social pour imam yi wax affaire millions moo ko war a waxtu wi eh, kundul di eh, defar affaire bi eh, moom nga ne moo moo defar bi moo defar plan bi autorisation yi ak na des centre centre Ahmed Saghir Mbay bi imam yi dama rek wax donte ko man kan Cheikh Ahmed Mbay bëgg doomi Abu Bakar doomi Saïd Mbay wattu na alquran ba muy nekk ndaw boole na xam-xamu naxu ak fiq ak tafsir ak bayaan te fekk weesoogul ñaar fukki at ku am ak yër la bu yaatu ci xam-xamu diine ku bëggoon jullit ñëpp la daan jëflanteeg ñëpp jëflante goo xam ne bu teey la amoon naa xarit ak mboolem kuy borom xam-xam wala ngay doomi soxna daana jëflanteeg ñëpp Cheikh Ahmad Bamba Hadj Malick Sy Xaadima Jaxate Kala ak Cheikh Saad Cheikh Saadibu ak Cheikh Maam As Kamara ak Cheikh Maoul Aynayni ak Mahfouz Aydara ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne jataay bi du laaj tudd ñëpp kilifa tijaan bu mag la woon moo présenté woon sax Cheikh Omar Fouti ci Pété mu judd kon ci tijaan bayam bi mu ci fukki atam ñaar ma saxir bayam faatu bàyyi ko magam di ñuy wax Abdoulaye mbay Abdoulaye mbay boobu xaw na ko mën a jur ba ma saxir te woon na ni mooy bayam Abdoulaye Mbaye boobu moo li njàngam tuuti mam tàmbale woon ci bayam waaye fi ma saxir mbay amee sens fekk na boo fan yooyu suñ Touba mi ngi wëreelu ci àddina bi di def siyaaxa suufiya di dem ci këri di dem bàmmeeli kokki yi di dem bàmmeeli feneen di dem fu mu déggoon lu baax mos na fa am yàlla woo yàlla gannaaw dëkk bi bi maam Seex moom magam dëkk muy muy pete soriwul kokki Sëriñ Tuubaa jaar fa ba fa Sëriñ Tuubaa gis ko ba mu ko gisee mu ne ko jàkk lu yàgg ba mu jàgg mu ne ko mu ndax yaay nguur suñ may dox di nettali maam Seex ne ko niru na ko mu ne ko yow la yow la daal ne ko xanaa bëgguloo ma aar la bala laa lamiñ lekk te mottali sa njàng maam Cheikh ni ka ah, loolu de ci saa mag la aju su ci sama mag d'accord Abdoulaye demal nga waxtaan ci ak moom sëñ Touba dem waxtaan ak ma ba magam Abdoulaye Mbaye Abdoulaye nangu sëñ Touba dal di jàpp ci loxol maam Cheikh Mbaye fekk mu ngi ci doom fukki at ak ñaar muy 1880 sëñ Touba daal di yóbbu seex mbay boobu dëkk bu ñuy wax Mbakke Kajoor foofa la Martaxir Mbaye gannaaw ba mokkale alxuraan ci baay yaay baayam ak magam jooju jàng tuuti ci ay mabaadiwu fiq